siyaare leen ndokkeel leen ci bés bi waaye waxoon na it bu ñëwee euh, feddaliwaat kóllëre bi dox seen diggante ak euh, sant leen ci turam ndax ku ne umpulewul ne fukki at ak ñaar yi muy bëgg a ci kaw euh, ci boppu Sénégal lim fi naal ci liggéey yàlla dimbali na ko ci ba ñi nga xam ne sax ci politique mën nañ ne bokkuñoo moom wàll nangu nañ ne liggéey na te liggéey boobu mu liggéey bokk na ci li ko ci gën a neex mooy liggéey bi nga xamante ne dëgg la liggéeyal na ko sénégalais yi waaye liggéeyal na ko sëñ Touba ndaxte moom nee na ci laminam sant na bu baax yàlla ba nga xamee ne buñ ne autoroute bi jëm Touba ñu ne président Macky Sall buñ nee mbeddu 30 bi nga xamante ne moo ceinturé Touba ñu ne président Macky Sall buñ nee infrastructure assainissement yi gën a mag yuñ mës a def ñu ne président Macky Sall euh, hôpital tamit bi nga xamante ne moo gën a mag moo gën a yees fii ci Touba ñu ne président Macky Sall euh, ministre Issakha Diop dama koy tooñ saa su ne ne ko conseil des ministres booy expliquer euh, ouvrage assainissement yi Touba chaque fois damay bëgg di la dégluwaat ndaxte xam nga sëñ bi ab porte-parole moom day dajale <laughs> waxi ñëpp ne ko naka la mel mu ne ma. Euh, dayoo bi da da nga dafa mel ni boo taxawee yow nit danga naan ñetti mètre la ci kaw ak ñaari mètre ci yaatuwaay nga xam ne loolu ci Sénégal defe naa ne Touba rek lañ ko gis président nag nee liggéey boobu yàlla dëgmali ko mu liggéeyal ko Sénégal waaye mu liggéeyal ko Sëñ Touba sant na ci yàlla bu baax waaye li ko ko may it mooy seen ñaan seen taxawu waaye xalaat yu rafet yi nga xam ne di ngeen ko ko jox ba loolu yëpp mën a ne nee na loolu nag bu demee ba toll fii mu toll tey yàlla defal ko li mu ko defal ba mu war a jàll ci leneen dana sant ñi nga xam ne ñoo ko ci jàppale te xam na bu baax a baax a baax seen taxawaay seen loxo seen ñaan loolu nag euh, doon kàddu yi nga xam ne bu mu ñëwee nee nañu wax ko ñun ñi it sëñ bi nga xam ne ci kër gi lañ bokk ñu ngi leen di seedeel suñu cam ci président de la république ndaxte sànq rek maa ngi koy wax sëñ Moustapha ne ko président ba ma koy xam defe naa ñaar fukki at ak juróom-ñett la am nga ñaar fukki ak juróom boobu ba léegi deful lu dul yokkuñu yar ñu yiir ak wan ñu yoon woo xamante ne wax dëgg yàlla sant nañ ci li ñu bokk ci liggéey boobu di liggéeyu Sénégal ak liggéey boobu nga xam ne it yegsi na ba fii ci Touba mi nga xam ne ci lañ bokk donc kàddu yooyu la waxoon ne bu ñëwee nañ leen ko nañ ko leeral mbooloo mi euh, gën a feddali kóllëre gi nga xam ne moo dox seen diggante man ma xam ci dara ndax lu bari sëñ bi dañ ciy waxtaan ci yéene ba nga ci am ak taxawaay ba nga ci am ba wax dëgg yàlla loolu yëpp mën a mën a mën a antu sëñ bi it président nee na du jóg ci sàkku ci yéen ñaan ngir Sénégal jàmm sax fi dàkk ngir Sénégal xéwal yàgg di fi am ngir Sénégal euh, xéwal ak jàmm jooju sax fi bu ko defee mu doon njëriñu Sénégal yëpp di la ñaanal nga yàgg fi lool di ñaan yàlla suñu borom fay la lu baax li ngay def yëpp te ñun ñu mat ci seede di sant it sëñ Abdou Lahad moom it ci taxawaay bi wax dëgg yàlla ci lépp lu ma fi président mos yebal taxawaay bi rafet na sell na xalaat yu rafet la koy defee te wax dëgg yàlla njëriñ lay doon ci ñun. ñu ngi delloo am nuyoo bu baax ministre Abdou Karim Fafana ne yaa mbooleem délégation bi nga andal bépp te buñ ci tuddee ministre Gallo Ba ci ministre Isaaxa Diop ne tudd ci jarbaatam bii di doomam muy Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma ne moom kat ñaari cër la ci am ne di ko nuyu bu baax di ko sant nag Cheikh Abdou Lahat di leen ko seereel ne ndegam seereel ngama ko nag ne man maa la ko waroon a jëkk a seereel ci taxawaayam ci pasteefam ak dogom ci liggéey bi ak rafetal gu muy rafetal seen diggante ci liggéey sëriñ Touba bi ne lépp luñ ko ci diggal nañ ko ko waxee dana ko defee nu ko raw kon ñu ngi koy sant di ko seereel ne nim mu ko doon seeree démb ci guddi rek sant nañ ko bu baax a baax ci yéeneem ju sell ak taxawaayam bu mat ak man liñ koy def loo ne du nuyu gouverneur de la région bu Diourbel ak préfet bu Mbakke ak sous préfet bu Ndaam ne di nuyu nag Talla Sylla ne comme ni ma ko waxee léegi rek noonu la demee kon Abdou Karim ñu ngi lay nuyu bu baax ne nañ la ko seerele woon daaw rek ne seen diggante yéen ñaar kat yàgg na ne booba jiitu na lii ne bi ngay jàng tàmbaleegoo liggéey bu ma masaa ñëw Dakar lu mu xat danga wut ay teraanga te booba jamono yombagut di ko indi booba ba nëgën ni lañu xamoon ci yow rek la ñu xam jërëjëf di la yóbbantim nuyoo akuk cant ak ngërëm ci président ne président di ko sant bu baax ci taxawaayam ci réew mi ne di ko sant taxawaayam ci dëkku sëriñ Touba bi ne ñett yi nga lim yëpp lu ci ne jàpp na ni moo ko jëkk yëg bu dee wataruut bi maak sëñ Sidi Maxtaar la ko jëkk a wax booba sëñ Moustapha doomi Cheikh Sidi Maxtaar mi ngi toog ak ak Cheikh Baara yàlla na ko yàlla yërëm ak Cheikh Ndiaye ne boo projet bi yeggagul sax xalaat la woon kon loolu ba yàlla def muy jëmm mu xam ci état yi mu jaar yépp ak yéen a jëm ca amoon ak ni mu amalee njëriñ dëkk bi muy jëf joo xam ne nag ba dinay tukki nee du gaaw raaf de la ca dolli ko waat hôpital bi nga tudd yàlla def na mu ngi koy wax waa kër hôpital Cheikhul Khadim bi fi ñëwee barki démb ne yàlla dafa def CRD màggal gi nga xam président day doog a gagné réew mi booba lay fàttali ca waxtaan wa waa hôpital Matlaboul Fawzayni jafe-jafe yi ñam am ci situation bi ni mu néewee nga xam ne hôpital Sénégal yëpp moo ci gën a néewle donte la démb nag. directeur bi ñëwaat na fi ak seen xaadim di ma xamal ni soppikuwul ba ndëgë ni ca biir waxtaan wa nag ca la ko wax ni ko loolu jaaduwut waaye man li may xalaat sax Touba benn hôpital dafa tuuti comme am naa yéene def fa projet boo xam ni hôpital bu mag lay doon kon mooy lii am tey ba ca desit mooy mbeddum 30 bi Abdou Karim wax yàlla def na moom ci kattanu yàlla bi fi Cheikh Mamadou Lamine Bara nekkee sëñ Touba doon na ko xalaat waaye yàlla dogal jotu koo def bi sëñ Sidi Maxtaar ñëwee 2010 ba 2012 nag moom mu yegsi ci nguur gi xalaat bi ci moom mii la jëkk jóge wax ko ko muy teel ko ba yàlla def na sax ndax mooy sama projet sëñ bas bi kon yàlla def na bu demee ba sotti ñëpp ciy bég waaye Cheikh Modou Bachir ne moo ci raw ne booba la taxoon ma xalaat ko daa bokk ci natt bu njëkk ba nga xam ni Cheikh Mamadou Fadal moo ko santoon sëñ waajuru sëñ bii mooy corniche bi njëkk ci dëkk bi muy loo xam ne bu amee deesu nu quartier sangam la jëm wala kër diw la jëm waaye dëkk bépp koy jariñoo ne yooyu nag doyoon na ko sëkk te mooy li ci gën a tuuti ak nag fonk gi fonk sëriñ bi jox ko cër ba lépp lum ko wax lum ci mën dana ko def lum ci mënut dana ko yéene. kon ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal la sëñ Tuubaa daale woon si kuma ku ma liggéeyal képp ku ma liggéeyal te ëllëg rek tax yàlla sana borom dana la boole ci ña ko gën a jege ne képp koo xam ne nag koo xam ne dangaa ñëw ci man te adduna tax laa jógit sunu borom dana la tëral giirug sag dund kon nee ko na rafet njot ndax loolu waxi sëñ Tuubaa la loolu mooy képp koo xam ni ñëw nga ci man te àdduna taxoon laa jóg yàlla dana la teel ci àdduna ji kon nee ko na xelam dal mu wóor ko ni yàlla dana ko dimbali يلا دنا كتير الجير جنب ثلاثة دول كويت موي كربين وحي وهم جي سرين بي وخ شيخ محمود المنتقى واخو نكو دما كو بغا جوت غير نوكل كو موي كربي باي فالي ديف شكر الله با سن بي دوجي تي بير ما جوخ كوكو تليفون سرين بي سنت كو غنم كو نانال بعد يم جيفانديكو نك la ma ca mën a wax nee na ko maa ngi lay kañ bu baax na nga xam ni am nga ndam ni ko li ca mooy dàq li ca ginnaaw daal ni ko Cheikh Mountakha ni président Macky Sall wala rek gi ma fasanteeg yow léegi feeg sama bakkan ngi noy day yokk waay du wàññiku loolu doy na sëkk